ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xuddaamihi wa man tabiahu bi ixsaanin ila yawmi ddin may jotli bokki taalibe yëpp di jotli sama bopp ginnaaw bu nu amee ndigalul Serigne Touba Sëñ Muntaxa Mbakke yàlla na fi yàgg lool te wér ma di leen jotli ndigal lu bàyyi ko ci Serigne Mor Fati nga xam ne mooy xalifa maam Cheikh Anta ak njabootuk maam Cheikh gépp leen jot li ndigal lu bàyyikoo ci sëriñ Abdul Qadir sëriñ Jili mi nga xam ne mooy xalifa sëriñ Mud Maamun ak njabootuk sëriñ Mud Maamun gépp noo am loo xam ne sunu maam ba mu jébbalee sëriñ tubaab boppam muy maam Cheikh Anta ko booleeg nanguwuta moom dara lu mu am ne Sëriñ Tuubaa ko moom ginnaawam mu jël ab taawam Sëriñ Moodu Maamu jébbal ko Cheikh Ahmadou Bamba Cheikh Ahmadou Bamba jàngal ko yar ko moom itam mu jël yoon woowee di ca jaar bu bisiñ fàllu wootee jumaa ji moo njëkk yëkkati million jox ko boole ko ku almet almet gi niru na lu lu doon aw cax waaye du aw cax diggante sëriñ Fallilu ak sëriñ ak sëriñ Mudu Maamun ak taalib yi xam xam lan mooy positif mooy million baa ngi noonu xaw ma dangay def ci jumaa xaw ma foo koy def xaw ma dangay lakk waaye almet googu daal bu la neexee nga taal ko ci te bu subaa nga laaj ma beneen ma wuti ko ndax sa baay fi indi lépp loole moo waxoon nag sa baay fi indi lépp muy lu wér loolu moo waral doomam doomam ju baax ju tedd ja murid saadix ba Cheikh Mouhamadou Rokhaya daan nekk ci liggéey yi Sëriñ Tuubaa di ci xëy di ci gont bu benn jëmm bis mu ne nun daal Sëriñ Abdul Ahad liggéey loolu nanu fi Euh, daaray kaamil daaray kaamil yi ñuy wax néeg bi suñ ab laat njëkk def daaray kaamil daaru salaam a ko defar mbaar mi nga xam ne mooy nekk ci kër suñ tubaa ji nga xam ne léegi mën nañ koo tudde ni mooy néegub sëriñ tubaa benn néeg bi mu am ci àdduna ndax ab néeg mooy néeg boo xam ne kenn yor caabi ji moo ko sañ a moo ko sañ tëj te ki yor caabi néeg boobu mooy kii yor caabi jumaa ji te caabi jumaa ji Serigne Touba rekk ko yor kon képp koo xam ne ki toog ko jataayub Serigne Touba di xalifa Serigne Touba nun waa Daaru Salaam bi jagleel nanu néegu boppam bi mu am ci kaw suuf nun noo ko defar kon nag taalibe bu dëkk Daaru Salaam loolu dong war nga xam ne mënoo koo fay sëriñ Tuubaa moo tax li ñuy jublu si te sëriñ Modou Rokhaya tàmbali woon ko ne buñ toogatee te liggéey loo wuñ am néeg liggéey loo wuñ nu mbaar nan sas suñ bopp waaye tooguma am at ba mu jeex te yëkkati woo addiya jox ko sëriñ Tuubaa jox ko ki ko fi nekkal loolu moom wóorut wala ku koy defit mudu moom duutu ca bokk bala maa defati lenn ci sama bopp walla lenn ci sama njaboot joxe addiye ba noppi loolu mooy bisu addiye bii nuy woote bi nga xamee ne nag bisu addiye boobu suñ madu roq ya nekk ne di ko woote di ko woote ba 1996 mu wàcc dem na eh, ma ñëw di yëgal sëriñ Saliou Mbacke bis boobu moom sëriñ Touba sëriñ Saliou di ko wax ne ko bis boobee ñu daan woote fa Daaru dañ ko bëgg bëggoon jàpp te bëggoon ci am ndigal mu laaj ma lu mu demee woon ma wax ko wax ko ni ko suñu roqee waxee woon wax ko ne ko moo waraloon addi yi ñuy daan dajale di andi ne alal di bisub sëñ Moodu na ko defal muy bisam bu ñëwee luñ mën a jàng ci alxuraan nañ ko ko ci jàngal luñ mën a jàng ci xasaayit nañ ko ci nañ ko ci jàngal boole ko waaye juróom ya nga xam ne ñoo ko jiitu ak ak ña xam ne ñoo ko fay fekk loolu nag mu jàpp ko le 5 janvier. bëgg taalib yëpp gën a salaat seen pas-pas ndax loo xam ne bi fi sëriñ Modou Rokhaya fii bi mu nuy tàggu noo ngi mujjee yóbbu dix-huit millions daaw nu yóbbu cent cinquante million dama bëgg bii nit ñi pësteefu ci ba lañu ci amoon daaw ñu xalaat ne dañoo war a am lu ko ñaar ca li fàttali nag ñi nga xam ne maa leen jaboote ñu njabootuk sëriñ Modou Rokhaya ñun ay jaam-jaamaat lanu ñun ñëpp suñuy sëriñ lanu ñun góorgóorlu fexe ba liggéey bi bu nu ci kenn ëppale bu nu ci kenn man nit kat bu ko yàlla defalee day nangu ne suñ borom defal na koy xiiwal wa amma bi ni'mati rabbika fa te kenn ku ci nekk xam nga ne suñ borom defal na li xiiwal ndax bis boobu yi rek kuñ ne kuñ ne sa waajur moo ko sos yow bis ba bu jubatee waratoo soxla mbubb waratoo soxla aw dàll waratoo soxla dara loolu takk sa laxasaay te fas yéene bis boobee nga def ca loo xam ne lu ñëpp yéem la waaye bu ñuy noppee murit du noppalu bu nu watee addi ji ba joxe ko nag kenn ku nekk xam ne université bii noo ko war a tabax te danañ danañ ci fas nañ ci yéene def loo xam ne lii kenn duñu ci ëppale woote bi nag man defe naa ku ku bëgg baax ku ne jaral la la man ne ñi ma ciy woo du taalibe yi Daaru Salaam du taalibe yi murit yi rek du julli lépp waaye képp koo xam ne xam nga ni def lu baax jaral na la bu ëllëgee yàlla fay la maa ngi lay woo ci bis bii di le 5 janvier dañ ci jiital njàngum alxuraan yendoo ko ñi nga xam ne ñoo ñëw di siyaar si di indi seen addiya ñu di leen teeru di leen teral di leen berndeel ba jant so bu juróom-ñetti waxtu jotee nu daje ak sunu bokki kilifay diine yi fi teew te bokk ci tarixa yépp te ñëw dinu ci wuy si nun ñi leen woo nu waxtaan ñoom ñoom santanteeg ñoom kon nag noo ngi woo ñëpp waa biir réew mi waa bitim réew te bëgg ñëpp def ci positif te xam ne ndajalem alal mi ci àdduna amul benn njëriñ kon nag yàlla na ci yàlla àggale te nangul nu ko muy liggéey boo xam nangu nan ko yàlla na ci yàlla dimbale ci daraje rasulullahi sallallahu alayhi wa waaye jërë ngeen jëf يا